réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñi ñu topp saa su ne si seen chaîne bi di Les Patriotes TV dal leen ak jàmm. kii di Cheikh Bara Ndiaye xam ne chroniqueur la kenn dootu ko présenté fii nga xamante ni moo di Sénégal si nekk si rajo télévision bu Walfadjri xam ne sax alxames si ngoon mu nekk fa dafa def ay chronique yu am solo moom ak ki nga xamante ni moo di Sa Ndiogou moom moomee nag tey émission boobu mu daan amal na ko tey jii daal ci kaw ki nga xamante ni moo di Madiambal Diagne yegg ko lu mel ni xemee nee na ki nga xamante ni moo di ma jambal jaañ moom Cheikh baara Ndiaye nee na Serigne Bass Abdou wax na ne ko ki nga xamante ni daal moo di ma Madiambal Diagne gëj naa ko gis torop ba bi ma ko gëjee gis wala biñ mujjee wax booba ki nga xamante ni moo di sëñ Baara boobu mu ngi fi di dund te ki nga xamante ni moo di sëriñ Baara Mbàkke bi muy làqu àdduna boobu jamonoy 2011 la te boobu kii nga xamante ni moo di président Macky Sall la falagul woon nekkagul woon président moom moomee nag di Cheikh Bara Ndiaye yemul si loolu waaye ki nga xamante ni nee na moo di ma Madiambal Diagne mën naa sos mën naa wax lu du dëgg waaye tamit bañ na ki nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko. kon mu mel ni kii nga xamante ni moo di ma Madiambal Diagne nag si fàttali ay jamono dafay waxoon ne diggante Ousmane ki nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko daa yëgatoon ay kàddu ki nga xamante ni moo di sëñ Bass Abdou Khadir moo si waxoon ak moom mu nekkoon kàddu yoo xamante ni nag yoo xamante boo ko dégloo maanaam doo ko lu benn yoon. mu mel ni kon daal euh, bañ gi nga xamante ni moo di ma jambal Diagne bañ na ko ki nga xamante ni moo di Sonko daal doy na waar lool ba deexal nit ñi.